salaamaaleykum amee internet chers téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci tabaski gile di leen doon ziar bu baax a baax comme nuñ ko faralee di defee ci Leral TV tey jii ñu ngi dalal oustaz Niang oustaz nag di borom xam-xam di kàngam ci li mu maanaam ci ci ci li mu ne waaye tamit di borom xam-xam boo xam ne kenn du ko naataamle macha allah ñu xàmmee kanamam gi bu baax a baax ci télé yile waaye tey jii mu doon koo xamante ne ci kër gi la nekk alhamdulillah waaye ñu war a waxtaanee ak moom mbirub tabaski gi ak fitnaay tabaski. tukki naka noona balaa loola ñu bàyyi ko mu nuyu cheikh téléspectateur aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar tabaarakallahu di leen ñaanal yàlla jàmm ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu defal ni jàmm ci daraje rasulullahi mbokki nag ñu ngi ci fan yi nga xam ne moo gën ci fan yi fan yi nga xam ne moo gën ci at yi fat mi nga fan yi nga xam ne nag li mu làmboog ci ngëneel kenn xamul nu mu toll te alquran tuddoon ko muy waskarullaha fi ayamin maadudatin fan yaa ngi noonu tabaarakallahu muy fekki fan yi ci la ñu nekk nii mbokk yi tabaarakallaahu ñu ngi leen di béggee bu wér di ñaan yàlla ñi nga xam ne dem neen aj yàlla nangu leen seen aj bi jaahi rasulullah ay wa tabaarakallaahu fukki fan yi ñu nekk ngëneel yi ci nekk rëy na lool ba kenn xamul àppam dem te bi wax na ci xaddis ne fukki fan yi ñu nekk ngëneel yi ci nekk dem na ba ëpp ngëneelu koor xanaa kon nga xam ne fukki fan yi ngëneel yi ci nekk rëy na fukki fan la fukki fan la yoo xam ne nag lu ci waay jaamu yàlla dañ koy fulandi fukki fan la yoo xam ne nag am na bis yuñ ci bëgg ku wóor mais am na bis yoo xam ne dañu naan la nag bëgguñu nga wóor fan yii nga xam ne tabaarakallaahu ujjaat yaa nga ca màkk di taxawaay arafaak tabaarakallaahu musdalifa di daw safaak marwaak yi ci aju tabaarakallaahu fukki fan yii la fukki fan yi nag tabaarakallaahu li ci ne ci ngëneel kenn xamu nu mu toll moo tax yu yonent bi waxoon ne ci xaddis ne bu ñu peese woon montagne asamaan montagne juróom-ñaar asamaan yeeg ni mu toll suuf ak ni mu toll bu ñu ko peesee fukki fan yi benn fan li ci nekk ci ngëneel ëpp na ko fukki fan la fukki fan la yow xam ne boo jaamoo yàlla ci benn fan ci fukki fan yi muy fukki fan yi ma la tuddal nga xam ne moom lay alquran naan wazkurullaha fi ayamin maadudatin benn fan boo ko ci jaamoo dafay tolloog nga jaamu yàlla at mi yëpp li nga jaamu yàlla ci at mi yëpp nekk lu ñu gërëm li nga jàmm yàlla ci weer wi nekk lu ñu gërëm li nga jàmm yàlla ci semaine yi nekk lu ñu gërëm li nga jàmm yàlla ci bis yi nekk lu ñu gërëm ñu to ñu peese ko mu tolloog benn fan bi nga jàmm ci fukki fan yi kon nag fukki fan yi tabaarakallaahu lu ci ne ci ngëneel rëy na lool alaaji Cerno Kan alaaji Cerno nee naa ba tey tëbaski bii yàlla waxu la wutal xar mu rëy yàlla waxu la wutal xaru cinq cent mille boo xam ne da nga koy leb déedéet yàlla nee na xar mi ngay rey soxluwuma yàpp bi borom bi nee na xar mi ngay rey soxluwu ma deret bi lu ma tuuti tuuti li ma ci bëgg mooy ragal yàlla lan yanaala llaahu lahuma wala dimauha walakin yanaalu taqwallah yàlla nee na soxluwu ma deret yàlla nee na soxluwu ma yàpp li ma bëgg mooy ragal yàlla mais tabaski bii da ngay gis jigéen ñoo xam ne dañuy nekk ci biir sëy sas seen jëkkër loo xam ne mënu ko da ngay gis seen borom kër jamono ji bu ñu fi tollee muy dox moom kese di ànd ceeno naan waaye mënuma ko waaye mënuma ko waaye te moom kesey dox fekk fi mu ne bu ñu ko teg ci biir kër gi la kon nag jigéen ñi ngeen bàyyi xel ne am na loo xam ne da nga teg ko sa jëkkër musiba dongu la bu dee da koy def ngir tëbaski defe ko te yàlla tax te boo deewee nag yàlla dina la ci duma góor ñi nga xam ne dañuy tëbaski bu ñu tëbëski ngir seen soxna tëbaskil ngir yàlla la ko digal boo ko defee ngir yàlla la ko di digal rek di nga ko def ni ko yàlla bëggee mais doo ko def ni ko sa soxna bëggee loolu nag lu jar bàyyi xel la réew mi nag tabaarakallaa ko problème la boo xam ne nee naa ba tay tabaski bi bu jotee da nga gis góor ñoo xam ne dañuy dox malaat la ñuy ànd ak nga gis góor ñoo xam ne dañuy dox di sànnee sànneeku loxo góor goo xam ne boo ko fàddee sax mu dal sa kaw ndax problème mu tabaski bi loolu nag ñi leen ko yan mooy seen soxna soxna boo nekk sa borom kër li la njëkk a war ci moom mooy bu amee tiis nga teggil ko ko nga régleel ko ko mais yow sa jëkkër génn jaaxle nga ñëw dolli ko yonantu li tax mu fonkoon xadija heure bu jaaxle woon mu dalal ko xadijatun sakkanat bil qalbi qailatan lam yuxsika allaha fi daare ni laa tëkk mi heure bu jaaxle woon moo koy dalal kon nag yow boo nekkee ci kër di sëy dalalal sa borom kër bu ko nangoo teg coona bu ko nangoo teg stress bu dul jeex lu ne mu ciy dugg yooyu yëpp tabaarakallaahu nag jigéen yow yaa koy dindi jigéen dafay baax nekk ndey ci kër di dimbali borom këram lu mu am mu doyloo ko waq na bi mawjudika fa fil baadil qanaati raaxatun waaye jigéen joo xam ne laaj bu dul jeex kooku beneen musiba la yàlla nañ ci yàlla musal incha allahu taala ngeen xam ne nag tabaski bii lu waay def rek seet ci yàlla waaye nag bu dee puukariwu da nga gis kër goo xam ne cerno ay frère dañ fay nekk xam nga li ma wax magak rakk ku ne am sa jabar wujji peccar gu yi ci biir kër gi di tiitaru sama jëkkër xar mi mu indi sama jëkkër xar mi mu indi sama jëkkër xar mi mu indi di ci tiitaru yooyu nag yàlla nañ ci yàlla musal parce que tëbaski woo te yàlla tax mais da ngay ki ngir sa bakkan ngir tiitaru yàlla nañ ci yàlla musal booy ki nga seet yàlla incha allahu taala te seen jëkkër yi nag ngeen noppal leen parce que góor ñi sonn neen lool. góor ñi sonn nen lool lool boo bëggee jënd jees ne rek yi ci aju jënd xarak ya ci aju boole kook ñaw yu dul jeex jëndal jëndal sa bopp jëndal ñëpp ñëpp ñëpp tout ak tabaarakallaahu fu ja fu réew mi toll fu réew mi toll nga xam ne dix mille daa raar yàlla nañ ci yàlla musal tabaarakallaahu charte tabaski nag li ci bokk mooy chartul uddahiya maanaam sarti ki nga xam ne dafay rey li ñu ko diggal mooy nag dafa am luñ ko ci wax ne ko bu fa tollee moom lay rey bu dee it xar mi ci boppam xar meeg bëy bi nga xam ne fi ne ni bu dee gëlëm ak yooyu yëpp gaa yi yegguñu ci mais xar ak bëy xar mi dañ ne la mu mat six mois am na ñu ne déedéet xar mi ci boppam un lay am bëy bi ci boppam am six mois yëpp nag sart la yoo xam ne dañu ko teg lii rek bu ko matee ngel la boo amee sa xar mu am un an looy dem di wuti ay xaru cinq cent mille francs bëgg a teg coono sa bopp bëgg a leb. yooyu yooyu yooyu yëpp matul tabaski xar xar moo xar dafay mat. matt xar bi nag bokk na ci béjjën yi dafay mag du nekk béjjën yoo xam ne dañu koo dagg war a xar boo xam ne béjjën yi dañu koo damm ba génnul kooku du mat beneen bi ci des xar ma dafay mat at beneen bi ci des xar mi tamit du nekk xar mu ñu tàpp matul tabaski xar mi geen gi dafay wàcc xar mi du nekk xar mu feebar moo xam ne boo koy xool yëg ne yii am nay problème xar yi day dégâts wu ci yëpp xar mi set wecc lay def ci côté yoo xam ne tabaarakallaahu gàllankoor la ci côté tabaski ni ko yuntu yàlla Muhammad waxoon ñu jëlee ko ci Buxaari wu nee na xar mi dafay mat tabaarakallaahu at yi ñu bëgg ci moom beneen bi ci des bay jëndi dafay génn beneen bi ci des du am problème mu patt bët déedéet bakkan bi du am problème gémmiñ gi du am feebar boo xam ne boo ko gisee gis ne am na luy génn ci gémmiñ gi waaye du ñu ko tàpp xar mi tamit geen gi euh, du ñu ko dagg dafay wàcc xar mi tamit bu ci des du nekk xar mu làpp moo xam ne feebaram kenn xamul lu mu doon maanaam xar mu loog yooyu yëpp tabaarakallaahu yonent génn na ko ci tabaski ne tabaarakallaahu bokkul xar yi nga xam ne mun la war a tabaski xattaa nag yii boo ci tabaski dafay sës parce que nag xar day dem ba bu demee ba mënul kii ñu ne la xar mu jigéen bu demee ba xar mu jigéen mënul lool ñu ne la bay bu góor bu demee ba bay bu góor góor mënul am ñu ne la bay bu jigéen yooyu nag tabaarakallaahu doog a ñëw incha allahu taalaa ku amul yooyu yëpp. nag amul yooyu yëpp nga toog xam ne nag yonent bi tëbaskil na la yàlla yonent bi waxoon na ne nag bu ñu demee ba ku amul lii yëpp na xool li mu am rek mu def ko. jullit yi nga xam ne nag rey neen seen xar ñu xaaj ci seen xar xam ne moom amul néew du doole la ñu yëkkati seen xar dem jox ko ko waaye nag da ngay gis ñoo xam ne dañuy rey xayu xaru un million te kër yi la wër xaru cent mille francs amuñu ko nga rey xaru un million teg ko di puukiriwu wala nga gis doo ci yam sax ci benn ay xar ngay jël di ko rey nga gis koo xam ne jege na la taqaloog moom kër wala seen kër yi jëlante xaru cent mille francs sax amu ko loolu puukiriwu boo xam ne bakkan nañ ci yàlla nañ ci yàlla musal bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa ban heure la ñu war a rendi. ban heure la ñu war a rendi heure bu tabaarakallaahu imaam teree ba rendi ba teg rek tabaarakallaahu la ñu war a rendi incha allahu taala maanaam. maanaam bu jullee ba noppi ba imaam rey ba pare mboolem kuréeloon ci gannaaw imaam rek dabal nga rey saxar incha allahu taala. waaye tabaarakallaahu loolu nag dafa nekk loo xam ne mustahab la. lil lil lil lil ya maanaam lu ñu sopp la ci tabaski nekk loo xam ne boo ko defee dara du la ci fekk mooy dagg say we boo ko defee tous du la ci fekk bakkar du ca am dara du ca am waaye dafa nekk loo xam ne lu ñu sopp la ba ci euh, nga ña nga ñàkk dog dem ba ñëw dogee geres beeg yi ci am yooyu sunna la yoo xam ne yonatu daan na ko def mu nekk mustahab waaye nekk loo xam ne nag boo ko defee tabaarakallaa xam nga bu dee korite dañuy bëgg nga dog ba pare doo ko dem mais bu dee tabaski nag da dañoo bëgg nga dem ba ñëw. dog a dog yooyu tabaarakallaahu mustahab la yu ñu sopp ci tabaarakallaahu tabaski. oustaz kooru arafa. kooru arafa rek tabaarakallaahu li ci ne ci ngëneel rëy na mooy li ma départoon sànq rek wax la ko fukki fan yi nga xam ne tuddal naa la ko tabaarakallaahu kooru arafa li ci ne ci ay ngëneel rëy na yununtu wax naa ko sànq nee na benn fan boo ko ci wóoree benn fan bàyyil xel ne dafay tollook at mi loo jaamu yàlla ci lu baax nag yu ñu nangu weer yi. ci lu ñu nag muy douze mois yi waaye nag tabaarakallaahu semaine yeek ni mu toll bis yeek ni mu toll nga koor ci benn fan mu toll ak moom kon nag ñu ñaan yàlla ñi nga xam ne dañuy koor kooru xarafa mu fexeel ba bum la rëcc kum ci mën a doon rek def ko tabaarakallaahu ñaan yàlla ngeen lii ci ne nag mu bañ la romb ñaan yàlla boo ko defee rek yàlla na ko yàlla nangu bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. waaw yonentu moo waxoon ne nag samay xeet danañu dëppoo ixtilaafa maanaam riiru kooku laab bëdd la mu am nga gis ñiy tabaski jour bi ñiy tabaski jour bi ñiy tabaski jour bi yooyu yëpp nag tabaarakallaa ko yonentu nee na woon sama xet du ñàkk mukk dañuy tappoo ixtilaaf muy wutee waxoon na ko Abdullah ibn Abbas ne ko yow mi nga xam ne yaay furéel xet bi bàyyil xel ne bis dina ñëw jamono di ñëw jamono di ñëw say wax lu ñuy teg la ne moo solo woon nangam moo solo woon nangam ndax sama xeet dinañu ñëw ay wuute dina bëri lool lool lool te képp ku ne nag lu muy def daf koy def ngir man nga xam ne nag kon tabaarakallah wuute yi bëri na waaye nag ak lu ci mën a am moom bisu tabaski moom nga woor ko araam na loolu tabaarakallaahu tifaaxan la tu wax ko ci hadis mu leer nañ kum ci mën a doon na ko bàyyi xel ñaan yàlla nag tabaarakallaahu yàlla dimbale ñu ba dëppale waat ñu muy koroteek ya ca mën a am ñu di ko defee noo di wooree noo di tëbaski noo tabaarakallaahu yooyu buñ ko defee rek yàlla dimbale ñu waaye nag am na yoo xam ne moom kalaandiir yu ñu teg la te am na ñoo xam ne dégluwuñ calendrier ñoon weer la ñuy xaar kon nag ñu ñaan yàlla yàlla dimbale ñu incha allahu taala mën a doxal lépp waaye nag kum ci mën a doon rek mu nga ci tabaarakallaa ko charia am ndax charia bi moo demee noonu ixtilaafu moom dafa dëppoo xam nga yunte xam nga Aboubacar Omar Ousmane Aliin nga xam ne yonent bi déggoon dénkoon nañu xulafaawu rachidina yi nañu topp leen sama sunna seen sunna ñoon muy Aboubacar Omar Ousmane Aliin ñoon daan nañu wuutee ci kanamu ñool màkk ba yonent bi ku ne mu jox ko dëgg moo tax da nga gis ngiir yi ku ne ak ci ki muy roy kii ci kii lay jëlee kii jëlee ci kii kii jëlee ci kii kii jëlee ci kii am nañ problème ci kanamu yonent bi ñu réglé ko te lépp ci aaya la woon muy fa subhanallah ina tam suun tabaarakallahu hiina hiina yi ba borom jabar ja buñ toppee xista bi day gudd ta la ko ca neex mu tànn ko yonent bi ne ko boo ci jël baax na parce que samay xulafaa wu leen loolu nag wutee la bu dëppoo xeet bi tabaarakallahu mu ngi noonu ñu ngi bégg ñëpp di kontaan ñëpp li jub ci yàlla lu dënga ñu ne wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu